Balla Gaye ñu continuer fi ñu nekkoon. waaw Elmo. di la di bëggee waa koñ bi. di sant yàlla julli soyante bi sant sama ñaari waajur. di sant sama yaay. di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. allo. waaw di ñaanal ku si mel ni ak Assane di ñaan yàlla na leen yàlla yërëm xaare la àjjana ak deem daaw dañ yaay xam nga di béggee ñëpp yaa ngi ak xaadim yaa ngi di ñaanal sam booy nekk ci kaso bi ñoom xaraasi xam nga ñoom ñàkk saw yaa ngi dégg ñoom jugaan yaa ngi dégg ak vees vees njaago bi quoi. Mhm, sigil xool ak ñoom gaa aale. Cheikh mhm. Bégué. Mhm. Jibi Cité sama fils maa ngi siyaar di ko ñaanal jàmm man ñoom laa am. aaleel sama tukulóor bi moom it yàlla na ko yàlla defal jàmm booy yàlla génneel leen. yee ak Cheikh Bégué waaw. nattu moom gaan jombut kenn. yàlla mooy dogal quoi. lu mu def ci yow rek amaana lu gën la. di bëggee tamit sama taawu yaay Abdou Mbaye Mbira Mbaye xam nga suñu waa kër ñëpp yaa ngi dégg di bëggee tamit sama baay faale di nuyu tamit gars yi jàpp ci affaire su mel ni njool pël bi ama waa xaaral dañ ñëw si ñooñu jàpp bi nañ wax si kaw Gourdin ñi nekk kaso yàlla na fa yàlla génnee ñi dee yàlla xare la àjjana dinañ ñëw si sant bi mais nañ ñëw si kaw Gourdin Baye Mandiaye ba Gaye seen mag ubbi na bunt bi nga war a saison bi mooy la 15 sa diggante ak yow damay kaw Gourdin lan lañ fas yéene xaar ci Baye Mandiaye diggante moom ak ki nga xamante ne mooy Kaw Gourdin lundi. waaw Edmo. waaw loolu dañ ciy ñëw. mais avant Kaw Gourdin dafa am gars yu ci combat bi. ñooñu dañ ciy ñëw ñooñu waaw ñooñu maanaam. waaw waaw nañ tëjee ñooñu fa lañ jëm mais waa sama waa équipe. waa école de l' Ivoire Maguette Seck Aline Seye. Mhm. su ma ñoom rek. nuyu naa ñëpp dégg naa ñoom seen nuyu Maguette Seck ak Aline Seye dañoo sonn ci combat. ak coach Ron coach Vier coach Vier dañ maa jàppale quoi. yaa ngi dégg ñoom maam joxuñu ma xaalis. Mhm. mais seen doole seen seen xam-xam lañ yëkkati jox tamit looloo mu gënal ay milliards. dëgg la yaa ngi dégg. waaw maa ngi sant tamit waa koñ bi di sant Modou Gueye. Mhm. di wax di sant tamit Abdou Salam. Mhm. teewul mais maa ngi koy sant di ko gërëm. di wax waa koñ bi ñun guy gi fii. ñun ñëpp benn lañ. kër yi sorantewul. ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi. nañ yeneente jàmm am na fi mais nañ ko gën a yokk parce que fii. xam nga lu waay yéene sa bopp rek loolu mooy dellu si yow te guy fi ay jandarmen rek ñoo fi ne ay jàmbaar ay liggéeykat ay ñafekat dëgg la xam nga yàlla na yàlla nag musal ci seytaane jubóo lañu ñun ñëpp kenn ku nekk bañ a moytu sa morom ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi waa guy gi yëpp ak secteur darkeset moom sa réew ñett mbaar ñëpp yàlla na yàlla def si dëkk bi jàmm waaw ñëwal si kaw Gourdé kaw dama ne man xale laa Edmo damaa nekk si yoon te gis nga li topp sama ginnaaw dëgg la dimanche yàggatul. Mm-hmm. su ma neexee ma ne benn jour moo ci des. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. Markaaw ku gën a liggéey. ku gën a entraîné. ku gën a sonn ci combat bi. yaa ngi ku ëpp jom ku gën a bëgg làmb ku gën a bëgg tegal say ay waajur. ku ëpp mbooloo. ci bis boobu noonu. yàlla na la yàlla may ndam. ma ñaay foo teg loolu. man xale laa Edmo damaa waaj. billaahi dama waaj Edmo waaj naa bu baax. barki maam Seex Rafal du kaaw gu moo may téye ñëpp nag dañ kaa jox favori ñëpp dañ koo jox fooba bi ndax moom moo ma mën yaay dégg mais man góor mënu ma et moo man góor du ma wax yem ma man jàmbaar laa bàkki maam Seera Fall billaay wallaay wax mun naa bëri nag mais bu ma duggee ci biir jëw damay def fulla ak fayda kafu ma réew ma fulla fayda laa wax man moom laay def ngay jàng. ngay bëree combat boo xam te ñu bëree ni mënu mën a permettre nga franchir beneen yi ma mës a bëree yëpp bii moo si gën a yomb. xam mhm. nga gars yi dañ ne moom moo mën. Mhm. man nag combat yi ma bëree yëpp bii moo si gën a yomb. bàkki maam Serigne Fall. baay man damay contact ak ay champion waa école de lutte Waalo yaa dégg Kaaw Gourlé dawul sama yaram. Mandiaye foo teg loolu si ñaan nga ko teg wala ci bëri. Kaaw Gourlé dawul sama yaram laa la wax du bu arbitre sifflé du ma ko arrière centimètre maa ko waxoon delluwaat naa ci. nee na min na géejawaay de. bu njëkkee woon ci man du fi duggaat. waaw laaj ko. madame laaj ñu li ñu jaaxal mooy Baba Ndiaye muy communiqué. est-ce que ni ngay li may bëre. ni ngay communiqué ni ngay waxee. dinaa leen junj ngeen yóbbaale man mbër laa bërekat laa foofu laa yem. waaw loolu mooy lan. waaw loolu noonu sama yëfi bopp la. parce que dafa gëm na nga bokk ci lim bi rek loolu la. wax bu yàqu la mu ne. dafa gëm na nga bokk ci lim bi waaw léegi ah maa ngi nii taxaw caméra yi tiim ma. Mhm. su ma neexee ma ni moom tamit daa bokk si lim bi loolu yombul. Mhm. wala yombul. te moom li moom sax daa xajam li moom daa xajam. li moom dafa xajam. kaw guddee gis nga li nga xamante moom ci côté kalite bëreem ak ndaraan yi mu bërëm ci làmb nga gis ki nga xamante ne mooy Thiat Daouda Fall mu dugg géejawaay daal koy daan nga fas yéene bëriwaale keroog li nga xamante ne mooy géejawaay nga bëriwaale tamit li nga xamante ne mooy mooy bi keroog foofu noonu mooy lundi boobu noonu tey pression boobu nan la nga fas def Bamba si lamb ji <laughs> yàlla rek moo tax may wax xamal lamb la laa ko jàppee <laughs> xoolal fële xamal ma jàppee lamb génn suñu bundu kër mm-hmm. dajeeg Jibi Balla wala bëreeg moom man pression nekkul ci man parce man man xoolal caméra yi ma Ndiaye. dégg nga. eh noos. Maguette waaw acca. voilà parce que tey man sama. allo sama moromu góor ni góor ni men. gaan ma taxaw ak moom naan damay am ay perroction ba pare làmb ji ay góor rek a fa ma ne man damay am perroction bu ma ñëwee kon sama yaay rey ma barki Seydina Muhammad waaw Maguette. waaw. lépp laa def waaw minute dafa xew nag de ah. minute <laughs> seconde yi. waaye man sama yëf yi bopp dinañ xeex dinañ bëre falaa yam yem. mais joxewoo seconde. dinañ xeex dinañ bëre. kon dina neex dina yëngu daal. gërëm duma ni nga daan ah. mu ne lay jàppale. ma ne. maag moom. dinañ xeex dinañ bëre te dinaa la xamal leen de. yóbbante ko ñu yóbbaale ko. Kaaw dinaa la yóbbante benn affaire yéen journaliste yi yéen a ngi fi. waaw sax sama combat ma wax leen. dëgg la. baay boo ma xoolee naani naa amoon naa poids bu bari. waaw gis nga wàññi. kon gis ngeen loolu. damaa liggéey baay damaa waaj. te buñ dinañ xam ni ku liggéey man ak kaaw te buñ nee wëkkum daje jàppante. Mhm. man moom. waaw dinañ xam ni baay góor yamul góor. waaw dëgg la mobilisation bi ak préparation. Eh. noonu la demee eh na noonu la demee Mass. dama daan bëri ay spécial. ay huitième combat di feesal stade bi. yaa ngi dégg seen kanam yéen kon bu may bëri grand nu mu a demee instant yii jënd nañ un million billet. di ko yàlla. un million billet laa la wax ne. moom lañ jëndagul jëndagul. ay mayaar lañ di sant nag Modou Gueye ak As. di ko xool caméra a yaa ngi dégg arrêté nga xool caméra yi. loolu noonu di ci sant Modou Gueye. Mm-hmm. Modou Gueye suñu bi. Mm-hmm. parce que ñun dañoo manqué woon lii quoi maire boo xam day ñëw di déglu jeunesse bi di si jàpp dañ ko manqué woon. nga tëj rek xam naa. waa. Edmo. waaw. dama ne. waaw xoolal caméra yi. maay maay sant As. Mm-hmm. As mi taxaw nii kii mooy As. yaa dégg. kii mooy as quoi. maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm jàpp na ci affaire yi baay as mi taxaw moom Modou Gueye. billaahi wallaahi ak Modou Baara Modou Baara. Modou Baara tamit ah. waa di sant tamit. Raya Galaye di sant Alpha Cëngala ak ñoom Moussa Balde sama joueur yooyu sax dañ see jàpp quoi yaa ngi dégg di sant tamit di moo ko la mu jugee ba Pikine. Mhm. yaa ngi dégg tamit waa Ndaat. waa Casamance di sant waa Foundiougne waa Thiaré mère Ayou yaa ngi dégg Xabaan Jaraaf maa di sant baax di sant père Abibou yaa ngi di sant tamit Abdou ko santaat bu baax yaa ngi di sant mère Sow di sant di sant mère Sow xam di sant tamit ñoom Arma Ndiakhou Tall wi ñoom xam nga di sant tamit ñoom maam daat kinne xam nga ñoom nday Diop yaa ngi dégg ñoom dañoo jàpp ci affaire yi di sant Ami Collé mu war a togg affaire yi yéen journalistes yi. waaw ma leen di sant bu baax di leen gërëm. ku ni ñoom pël bu rafet rek jot naa fi ñoom teg ko si loxo yéen ñëpp mën a am. ay Baye Fall ngeen parce que ñun bu ñu génnee ba nit ñi dañu gis à cause de yéen la. ñu di ñaanal li ngeen bëgg. yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal parce que lii nii yomb ay Baye Fall ngeen dañoo far mbër yëpp Baye ci Baye ma Ndiaye rek. yàlla na leen yàlla fay seen xol li ngeen a ko xam yàlla defal leen ko ci bàcc seen i naamoon. du woo di woo ñëpp dimanche ñëpp lundi ah lundi waaw maa ngi leen di woo esat feetu njaaboy la feetu njaaboy kees njaaboy laa ko may maa ngi leen di woo yéen ñëpp kees ut bi esat ngeen mobiliser wu yéen ñëpp ñu feesal esat ba mu fees dell ak ci sunde taw bi lee ma duma ma daan ko ci kàttu na yàlla ak maamam jéema ñaari kàddu rek ñaari kàddu rek di leen sant di leen gërëm di wax ni combat bi su mën a wéet. waaw parce que suñu borom dafa bu dee entraîné. entraîné na bu dee jàppale am na ko mu mat sëkk. waaw parce que ki nga xamante moo nekk le maire Mamadou Gueye. waaw xam naa ne bu ñu naan social ñëpp xam nañ ñu xam nañ ko. jàpp nañ incha allahu rabi. liggéey bu soobee yàlla. képp ki nga xam ne ñoo nga fii. billets yi dina disponible oto yi dina disponible te incha allahu rabi Mamadou Gueye dina jënd lépp ndax mbir mi jaay la tey mooy suñu waa des arènes. jërëjëf. commencé faju de. yàlla la fi yàlla yàggal yàlla bàyyi la bokki presse bi yëpp a ngi ne ak journaliste yi nag taxaw di xaar ki nga xamante ne mooy Modou Gueye loolu lu war la xale xale ñoo mën a ànd naa la bëre xale koy def mais mère tamit bëgg naa ci xale waaw màggetum 60 ans yi war ñu xëccoo xale yi 10 ans yi Modou Gueye seen taxawaay ci koñ bi rafet na bëgg nañu kontaan nañu parce que man na fii laa dëkk mën naa wax ci moom lu bari yéen nag comme dëkkoo leen fi ñoo bokk métier mi bàyyi leen ma jël kar parole bi rek wax waaw parce que moom maa fekkee bakkan lay laaj waa nañ dem Modou Gueye dañ ne lamb dafa am affaire la gox la ñëpp xam nañ dali fort Pikine Baye Mandiaye di xamante ne mooy géej waaye fas yéene jàmbaar ak moom arène seen taxawaay lan la ci loolu waaw xanaa di am mbégte bu baax di nuyu waa gox bi yëpp di tàmbale nuyoo bi ci suñu sëriñ sëñ Ousmane Mbacke mi nga xam ne ñu ngi ci këram. di nuyu aussi suñu doomu ndey Abdou Salam Mbaye bi nga xam ne fii këram la. ñuy nuyu waa guy gi yëpp. di nuyu aussi ñi nga xam ne ñooy xale yi di ànd ak Baye Mandiaye nga xam ne jàpp naa ni ñoom man lañu taxawal. ndax kii drapeau gox bi la yor. kon buy yëkkati drapeau yi. ñoom di nekk ci ñoom di taxaw ak ci wetam. di ko jàppale di ko gunge. man la ñuy dimbali ci Baye Mandiaye mii di yëkkati suñu drapeau. Baye Mandiaye. ko waxee nag. dafa mel ni lii nawetaan la. ñun nag kii mooy suñu équipe. mooy suñu mbër. mooy suñu mbokk. te moom lañu am. te yéene nañu si moom. roi des arènes. te bëgg nañu si moom. mu nekk champion bu mag. te nag dox na tànk yooyu. kon ñun liñ ci war. mooy gunge ko. li liñ ci war mooy nekk ci wetam li liñ ci war mooy gëm ko te gëm nañu ko gëm nañu ne nii mu def jàppale ndaw yi ànd ak ñoom wan leen jom wan leen fulla wan leen fayda mi ngi jàngal suñu xale yi valeurs yi nga xam ne moom la ñu soxla ci suñu société kon Baye Mandiaye dañu koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam mais aussi dañ koy témoigner ne fépp fu mu nekk ñun la fa nekkal kon fépp fu mu nekk ñun dina nekk si wetam incha allah rabbi dina xam ne dimanche buy dem suñu drapeau lay yóbbu kon ñun dinañ ko ànd moom dinañ ko ci gunge ba muy dem jëli ndam li gunge ko mu ñëw indiwaat ko ci gox bi ñu ànd moom feete ko xam nga moom nag sportif la ku ko xam si sport waaw sportif la mais noo gisee sa mbër jamono jii ñu toll nii ci propre physique waaw xam nga Baye Mandiaye day xale waaw ba noppi nekk xale bu am jom ñeme entraînement gëm li muy def lii nii mu mekk forme bi mu nekkee nii du lu mu lu mu for lu mu liggéey la te insha allahu mbër mi taseeg moom dimanche bu tëddee bay boom bañ nelaw kaw gu waaw ndax xale bi dina xëy song duma ko daan ko andi ko fi ñu ngi sàkku ñu defal leen li nga xamante ne mooy salle de musculation bi ñu defal leen ci ay matériel ñu intégré leen pour ñu mun di entraînement parce que dañuy jógee dem ay gox yu sori di fa entraîné am nañ fi fi ay mbër waaw loolu ay ay semaine moo ci des wala sax ma ne ay bis rek moom moo ci des ndaxte salle bi dafa war a nekk loo xam ne ñoom sportif yi ñoo ko moom fi mu nekk nii jox nañ ko benn sportif pour mu diriger ko muy El Hadj Malick ñu di ko ñaanal yàlla may ko ci ndam ñoom ñii nag ñi nga xam ne ñooy sportifu gox bi mhm. dañ ci war a yëg seen bopp bu baax mooy liñ daan dem di fay ah. di ko di ko dund ci yeneen salle mhm. ñu mën ko am gratuitement ci seen biir commune mhm. te incha allah rabbi loolu question de jour la su ko defee ñoom ñu mën di yokk seen kattan mën a yokk seen doole mën a yokk seen entraînement te loolu gox bi moo leen ko yoreel gox bi moo leen koy jox incha allah fii ak ay fan yu néew a néew a néew jërëjëf am na solo Mandiaye Modou Gueye nag fi def ak sama gars yi teraanga jox leen li nga xamante ne mooy passe journaliste yi tey ñoo ay yitte yu bari ñëw ndax sa jëmm kon boobu bu ñuy dem war ngeen mën a yóbbaale tey ay passe waaw man see ñàkk te ngeen màtt waaw ku seet si Bama Ndiaye booy booy ñibbi da yóbbaale passe yóbbaale reeru xale yu mbër kon nag boo leen demee stade dimanche waaw na ngeen bu leen jël bi rëcc. yéen journaliste yi. na ngeen filmer bu baax. bu leen jël bi rëcc. bu koy yenn ba biir bi weex. Uh-huh. na ngeen di filmer. Uh-huh. bu koy door ci suuf. na ngeen di filmer fata ko. <laughs> incha allah rabbi. Ah, jërëjëf jërëjëf am na solo lool am na solo jërëjëf Baye Ndiaye. ma sànni si ma sànni si ñaari kàddu. Eh, Edmo waaw. dañoo sant yàlla ko quoi parce que amuñu woon lii nii. dëgg la waaw sant sant nañ yàlla bu baax. yàgg naa fee ñëw. suñu xel gën naa dal bàyyi. dëgg la bàyyi sëñ Fall. waaw yee kii Modou Gueye ñu nag moom avis. jox la bi de. bàkki maam Serafal kii kii même bu dul bi kii dafa baax. bàkki sëñ Fall Baye Fall la dafa ñàkk ñaan. am na maire bu fi nekkoon. ñu man su ma ko romboon xàmmee moom mosul teg tànkam fii. sama taaw bi lu mu wax léegi léegi ba Modou Gueye di ñëw. mu ne ma ragal feere day xañ wërsëg kii tudd ko tuddaat ko tuddaat ko parce li mu def nii lii dafa bokkul ci histoire lii mosu fa yam yaa ngi dégg Modou Gueye duñ ko cof de bàcc sëñ Fallou Mbacke dañ koy siyaar du siyaar aas tamit lépp aas la maa ngi koy wax di ko waxaat aas kenn du moom Mbacke alxuraan karim du ci dolliwaat du nuyu Abdou Salam mi dëkk ci koñ bi yaa ngi dégg fi ñu teg moo Gueye foofu lañ ko teg Abdou Salam bàcc sëñ Fallou Mbacke billaay wallaahi ñun ñoo bokk ndey ak bàyyi ragaluñ fuñ jëm quoi yaa ngi dégg Abdou mooy Modou Gueye Modou Gueye mooy Abdou Salam te yaakaar naa ne képp kuy jàppale Baye Ma Ndiaye képp ku bëgg Baye Ma Ndiaye nag sa war kontaan parce que lamb rek lañ am yaa ngi dégg du booyu ndaw yi mbir ne sama koñ souvent Papa Dumbul Abdou Mbaye Setou Gaynde ñu may loo Karim loo Karim décce cee yaa ngi dégg ñoo bokk koñ quoi mbër yooyu yëpp ñoom alaaji mafia bi souvent waaw gars maa leen nuyu di ñaana ñaanal jàmm kontaan naa jërëjëf